Modou Lo war a dem yow kay boo bëggul a dem bul dem ibaadu yi du bon def dafa ñu lu bon nekkuñ ci lu bon eh, Modou magum jëmm la mais Modou Lo lu muy topp ak dul topp xam na ko magum jëmm la xam na lu aw yoon ak lu awul yoon nañu bàyyi nit ñi ñu libre nañu bàyyi nit ñi ñu libre kenn ku nekk nga gëm la nga gëm nga ne ca c'est problème mais ay Modou waru faa dem daa waroon def fii mais lu mu koy wàññi defuñu fa lu bon waxuñu fa lu bon ñu nga nekk ci seen lu baax na fa dem su fekkee ne itam yàlla dogal na dem na fa ñoom nañu bëgg a doxalee ak la ñuy waxtaane nekkul lu jubóog yoon ñu génn nga génn dem si nga génn dem sa yoon parce que loolu mooy liggéey mais Modou loolu du dara loolu du dara ay ay wax la rek wax ji lañu war a bàyyi nañu bàyyi wax ji nañu bàyyi wax ji yéen itam ah ayaa bi mbang ah yéen moom ayaa bi mbang ndax yéen moom wax euh, wax li ma wax yépp li ci li ci garaaw ngeen jël li ci garaaw daal da ngeen fexe ba kenn ko ne dana ko teg mais dara garaawu fi dara garaawu fi man daal bu ma paree yéen dem naa tëddi duma ko déglu sama yoon nekk ci. da nga lire commentaire. lire duma ko def mais man awma jot. aw ma jot bañ ma ko dama amul jot. waaw dama amul jot fi nga yaa ngi ma fekk ma tourné ni ma pare maa ngi leen di yéen maa ngi yëpp tuwaan aw ma jot soo ma xoolee xam ne aw ma jot ah. c'est ça mais yéen nu ma leen di def danaa leen xaar waaye danaa leen weer huit heures su leen fekkul fi dootuma leen jël huit heures waaw moo xam nag moins deux moins dix moins cinq waaye huit heures moins moom na ngeen ko teg nag mm. na ngeen. Ah, ah, ah, mais fan dama gis euh, am non nee naa la loolu boo ma ko waxee dootuma la jël bu ma kenn wax loolu man mi bañ ba dégloo ma luy sama yoon ci loolu sama yoon nekku ci ñi may ŋàññi ci réseaux sociaux yi ñoo ñoo ñoo tey ñoo tey parce que li may doxal di leen ko wax moo leen neexul koo wax lu ko neexul nag mu toxoñu maa leen fatt maa leen fatt dëgg dëgg dëgg dëgg ñu def nii toxoñu rek dara nekku ci dara nekku ci bu dul lool sa wax jii du ma dégg du ma yëg loolu te bëgguma ko ma ko wax intéressé wu ma parce que boo jëmee ci réseaux sociaux ki lay ŋàññi tey boo demee na mu mel melul nu nu nu bëgg mel ni mel melul nenn dañ naan kii kan la waaw kii mooy kan ki wax lii mooy kan waaw kii mooy kan mooy kan waaw bokkul ak yow yow mi nga xam ni boo ni tëll ñu ni cey Iran lu mu waxati waaw ñu del li ubbi xool waaye kii mooy kan ah kii dof la solom baaxul ñi mel baaxul mu ngi mu ngi mu ngi jaxasoo kenn xamul lu muy niru te buñ ko doon melal ni Iran mu daw ba rëq buñ noon Iran dawal melal ni kii mu bañ ba lànk bàyyi ko mu saaga man ma déglu du ma déglu bu kenn dégtal dara du déglu du ma déglu réseaux sociaux yi lu leen neex wax leen en tout cas daal bàyyi leen fi mag en tout daal bàyyi leen fi mag ñi en daal bàyyi leen fi mag ñi mag du liggéey li mu liggéey sonn li mu sonn xale bu xonq cuy ba koo yàq loolu moom nañ koy bàyyi nañ ko bàyyi moo gën su leen neexee nag teg sama yoon nekku ci man sama yoon nekku ci dara waaye nañu bàyyi mag ñi tout tranquille ok nit dafa maandu su fekkee ne yow dañ ne euh, sëriñ sàngam nàngam mais maandul ci loolu moo gën mais dal ci seen kaw ŋàññi leen wax leen lu ñu wax ti ñoom ci seen bopp duñ dal ci sa kaw duñu la ŋàññi duñu la wax lu ñaaw mais waroo leen wax lu ñaaw ah waroo leen wax lu ñaaw kooku moom d'accorduma ci man li ma d'accord rek mooy nañu demee ñun ñëpp sago nañu demee ñun ñëpp sago nañu demee ñun ñëpp xel parce que sago dafa baax xel dafa baax mais ñëw rek dugg ci dara coow fii day indi ay polémique rek murid yi dañuy dal sa kaw tijaan yi dal sa kaw xaadir dal sa kaw ñeneen dal sa kaw nga dal seen kaw ngeen nekk fii dalante du ngeen di demee du ngeen dem du ngeen dem du ñu dem kon ku nekk na téye la mu yor Cheikh Alhaaji Malick radiallahu anhu nee na dëgg dëgg gu leer ku la ne am naa ko day fen ku la ne am naa dëgg day fen nañ xaar ba yowmal xiyaam ku yàlla joxoñ ne la am nga dëgg nga xam ne am nga dëgg ku yàlla joxoñ ne amoo dëgg nga xam ne amoo dëgg mais lii mooy yoon mais nekk fii ci àdduna di bàkkoo ko manifesté woo ko la ilaha illallah mais jaru ko jëlal téel li nga yor bàyyi keneen téel li mu yor ñu sàmmoonteeg loi soo ëllëgee nag buñ dajeeg yàlla lu luñ gis loolu rek la yàlla moom lu mu àtti la lu mu àtti noonu la xam nga sénégalais dañu am rëy da ngay ne ci dara mu wóor la ni lii du dëgg nga war a wax ni lii du dëgg nga sax ca mais loolu du àdduna àdduna da ngay seet li nga xam ne moo tegee ci yoon nga tegee ci loola li tegewul ci yoon nga génn ci loolu ci des nekk fi naan euh, du ma wax ak su ma waxee dañ may saagaak mais ku la saaga lu mu lay jëriñ lan la laa jëriñ mais mais mais dafa yokk sa yiw wàññi ay yiwam moom bu la ku la mën a saaga ndey baa mu saaga la bàyyi baa mu saaga la lum mën a doon am yaa ngi yiwam jeex na bi ci des système pour seen dund neex da ngeen di mel ni man man du ma dara soo ma doon saaga feeg yow mal xiyam te bés boo ma ko dégtalee ma bala bés boo ma ko dégtalee ma bala du ma déglu ba du ma déglu parce que ki nga xam ne dafa am jot di saaga di wax lu ñaaw di wax lu bon di dàgg sante mais diine amul dàgg diini amul weerante diine wéral la am amu ko waaye ku ne génn fee kee génn fee te kat kaay ku ci sa baay amoon problème doo ca taxaw ku ci sa yaay amoon problème doo ci taxaw ki nga topp di ko xulul ki nga topp di ko xeexal ki nga topp di ko coowal mais du sa baay du sa baay te amalu la njëriñ yonent bi alayhi salaatu wassalaam dafa wax ne riddallaa fi riddal waalidayn wa suxtu laa fi suxtil waalidayni su la sa ñaari way jur gërëm yi am nga ngërëmu yàlla suñu la meree yàlla jéppi na la waaw li yonent bi wax ko leer na naññ bàyyi fi ñi bàyyil fële ñële te nga jéem a am sa ngërëmu way jur mais xale yi xoolal xale yi ni euh, boo leen di xool sax da leen di yërëm da leen di yërëm xamuñu fu ñu jëm xamuñu fu ñuy teg seen tànk parce coow lii dafa bari soo àndi kii bu subaam kële dal ci kawam nga ànd ak kële kële dal ci kawam mënuñoo jël benn yoon rek ñu jaar ci ñun ñëpp mu yoonu njub nañ ci jaar mais saaga fii polémique fii weerante fii daf ko jaar jaru ko jaru ko laa la wax jaru ko kenn man de kenn jaraluma saaga kenn jaraluma rey nit mukk ci àdduna dinaa la rey wax nga baat bu garaaw wax nga baat bu garaaw dinaa jógee fi ma ne ñëw fi nga ne rey la dangaa ngaa defe ne caat da ngaa defe ne wax nga wax eh, wax nga lu garaaw wax nga lu garaaw te da danga da yëg ne wax nga lu garaaw parce que jël nañu la jël sa numéro jël lépp pour lan pour lan nga saaga ndey nit saaga ko maam saaga ko bàjjen ci ay masala yoo xam ne li muy wax dëgg la ah, yow foo ko teg yow diine diine diine xale bi gën a tuuti sañ na cee wax diine xale bi gën a tuuti ti nekk jullit sañ na cee wax waxuma laa ko ko dul jullit bu dee nag tariixa ña ko moom ñooy cay wax ñoo ci am sañ-sañ su dee diine ñun ñëpp ci am sañ-sañ kenn ku ne sañ am nga sañ-sañ wax ci diine man de sama bakken bii te dara duma dal dara dara duma dal ay ay ay ay wax la rek waaye suma bakken bii su ma ko joxul diini duma ko jox keneen diini rek diine rek waaye saaga fii polémique fii wàññi fi loolu loolu jaru ko jaru ko gis nga maa ngi koy wax rek ci affaire jumaa yi ma ne nañ tijji jumaa yi jumaa yi nit ñaa ngi julli xottu xottu yi xottu waa fa des xottu moo fa des ñépp ngi julli ji jumaa mais xottu yi pour lan pour lan nañ ko bàyyi ni mel mais boo jëlee xott juma tëj ko nit ñaa ngi julli ji si yeneen juma kooku lu muy jëriñ ah ban njëriñ la day fekk kay nga tëj ko arrêté nit ñi julliwuñ ñu ne dañuy kaas mais nit ñaa ngi julli te fu géej fu fu farata jotee ñu dem te yenent bi nee na ñetti ajjuma ku ko bàyyi soo yoroon tubooy amatul ñoor soo amoon tubéy amatul ñor ci diine nangu nañ ñu julli sibaar nangu nañ ñu julli tàkkusaan nangu nañ ñu julli timis nangu nañ ñu julli géeye nangu nañ ñu julli suba yii moom nangu nañ ñu def ko ca jàkka ja waaye lànk jumaa ne duñ ko julli luy ndeyam mais loolu loolu nga dul xam te ñu ngiy def daje yoo xam ne maara day taali jumaa joo mën a dem amul mbooloo mu toll noonu ñu ne duñ ko wax duñ ko kaas pour lan lu xew yow kay defal sa def waaye nit ba bàyyi nit ki kaas-kaasam defal sa def bàyyi kaas-kaas kii kaas-kaas mais bu fekkoon sax waxtu yëpp dañ koo tere mais waxtu yëpp bàyyi nañ julli ba mu des jumaa jumaa ci la waxtu ñaan ijaaba ci la ñu may aadama awa ci lañ ko may ajjuma juma la ci la di tukki ci la lépp lépp lépp aju mais xoolate nangu nañ nga julli tisbaar tàkkusaan timis gee suba julil ci jàkka ja nañu booloo ci jàkka ja mais juma non mais jar na seetaat jar nañu seetaat ko lu ko waral gis yii yii dañuy indil problème gis nga après tëjum jumaa yi bu paree dana lu ci topp maa leen ko wax tudduma kenn kenn laa tuddul waaye maa leen ko wax après corona am na lu ci topp waxoon naa leen ko gis ngeen ko ne naa leen man corona ma après corona moo ma jaaxal eh, mu ngi nii ñépp a ngi bëgg dee dañoo waxul te des na yàlla yàlla kenn du bàyyi ndigleem topp sa bakkan mu di la seetaan dana la wan ne maa la bind dana la kaata yooyu moo dul dara nañu delloo si suñu diine jumaa yi ñu tëj grande mosquée bi grande mosquée bi tabax mii ñu ba ko noonu ah góor góor a góor dafa daje di juutalante ñu bàyyi noonu rek léegi daal nangu nañ góor sëyee fa góor waaye nangoon julli fa mais loolu tegewul fenn ñu ubbi grande mosquée na julli di dem julli fa suñ ko ubbiwul aw xott la rek aw xott dong la yàlla moom tabaxal tuddee ko ubbil tabaxal tuddee ko tëjal du ko jël du ko laal du ko jege na ñu delloo si sunu borom delloo si bëgg-bëggam delloo si ay ay ay ay ay nu mu tudd ay affaire am lépp lu aju ci yàlla nañ ko delloo suñ ko deful danañu ko yëg te ku jàpp ne yor nga xaalis billaay xaalis réglewul mbir mi yàlla mooy régler mbir mi kon nañu bàyyi xel sunu bopp